nee naa leen lépp li nga xamante ni rek actualité la bu soxal réew mi ci kàttanu yàlla moom lañ leen di euh, toppal indi leen ci li nga rek loolu ngeen ci bëgg a gis tey nag suñu dalal koo xam ni macha allah kenn doon ko présenté ci réew mi muy artiste boo xamante ni euh, maanaam am talent ak mën li muy defam kenn dootu ko naatable muy Dame Sène borom Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar tey nag moom la ñu dalal fas yéene waxtaan moom nag bu baree bari waxtaan bu yaatu lay doon avant ñu xuus dañ koy daal di nuyu euh, dalal ko jàmm ci biir TV daam leen nuyu di la ziar bàyyi la nga nuyu ñu seetaan avec waaw maa ngi lay fay Rasoul. daam seen mi lay siyaar mi ngi lay bëggee. mi sant yàlla nag bu baax jul Seydina Mohamed. sant suñu ñaari waajur ñu ñaanal sama yaay mu yàgg fi loolu sama baay ba ca barsaak suñu borom yërëm ko jéggal ko xaar ko àjjana. sant sama sëriñ nag sëriñ Saliou Touré. yal na yàlla yokk leeram tas ñu ci barkeem. ñu ngi bëggee ñëpp nag. di sant ñëpp di ñaan jàmm ci réew mi. ñu xuus rek après. kontaan nañ kontaan nañ baax ni nga nuyo daam mais daa leeree nga foofu de daam lu lu daam lu tax yow nga nekk artiste boo xamante ni macha allah Sénégal bëgg la ngay def lu neex ñëpp apprécier daam rek standby li nga xam ne moom mooy carrière am daal dem toog bitim réew lu waral lool. non doom dem beeg ñëw bi. damaa léegi waaw lijjanti sama bopp rek. xam nga lu bañ. lu waay mën ci feebaru daam bi. ñaata artiste lañ fi toogal bi leen ketal. bëri na dañu yàgg toj Sénégal léegi nag boo toogee artiste la artiste la nga topp ko rek topp fan si ñaan yaa koy toj ñoo la ñuy topp man bu ma kenn topp sama ñaari malaaka yi sama mbagg nag sama taxandeer bi may topp rek doy na ma ay topp keneen ku ma topp dinaa la réeral nit nag mën na la bëgg nga koy bëggal ca la ngay def waaye nag bu lijjën sa bopp jotee dama nga lijjën sa bopp ndax àdduna dafa gudd tànk te dañu nekk jamono ju metti joo xam ni kenn talatul kenn bopp sa bopp la te ni ma la ko waxee rek li waaye mën ci feebaru daam laay bañ wala daam la ñuy ketal daam il est mu dem lijjanti boppam parce que Sénégal boo fi toogee rek dimb boo artiste la ñu lay réalité démb booy li nga joué kër gi nan la nii toj nga fi yaa koy toj yaa ko yor nga basé wu ci loolu di nga xëy ah bëgg li ngeen sa bopp mu tële de. daam bu ma déggee nga demee ni bi. même buy fay weccet la lay jox. maanaam li nekk parce que tamit maanaam boo basé ci ay tëgg wala nga basé wu ci génn single wala album wala nga basé wu ci ay playback kër 1500 tabaxu ko de. kër laa wax de waxuma la ab mayga waxuma la pantere waxuma la waañ kër laa la wax te gis nga doomu aadama euh, ci àdduna te yi fi yàlla lay ay nit kese lañ duñu ay jinne duñu ay malaat kon nag fexeel yow nga gëm sa bopp nga am gëm-gëm goo xam ne moo la ci génne kë nga topp rek cëlax cëlaxu àdduna yi bu boobaa boo ko defee maanaam di nga sonn trop parce que bés ngi ñëw nga yow bu yow sax sa njaboot te tey nga xëy dëdd àdduna su fi sa njaboot te am na ñu am fit ñoo xam ci àdduna tey boo bàyyi sa njaboot ñu nekkoon say xarit wala say jegeñaaye mën nañoo jour dëkk mën nañoo jël charge bu ne dama lay wax moo ki nga xam day fekk dëjub jàmbur rek ñu naan kumu amee nag ki ka ameel ku mu ameel ñëwal ci man fekk yoroo 1000 francs ñoo yem. dama lay wax rek de <laughs> man li may wax nii du pour man kese pour ñëpp la te artiste bu fi bu fi bàyyiwul xel loolu. Mhm. ñu ngi xëy génn àdduna ñu ñëw naan ñëw jël famille bi en charge njaboot gi maa leen yor léegi maa kii seen jàng dund gi maa ko res une semaine ngay def ci suuf yow sa di yëg ne sa njaboot tumuraanke nag kon nag man balaa la ma loolu la fekk ah dëgg yàlla bu ma gisee buntu dama naan cerax dem. ok dem nga. non yow demaguma sax bu ma gisee buntu dama naan cerax dem. yow mi tey boo gisoo buntu dem gisoo dóor wut bunt la sax gisoo mbëri léegi dañ naan nii nga mel nga defe dañuy xeex si fekk xeex si wuñu <laughs> dañuy bu ñu jekkoo sa tànk boobu mu dem de nii la demee lii tax daam moom toog ci réew mi dinaa ñëw ci réew mi nag ndax Sénégal bëgg nañ ma mhm. te heure bu ma dikkee am lu ma leen may. Hmm. loolu daal fi ne nii moom wax dëgg yàlla mën naa ko waaye nag mënu ma rek rester réew mi te xam naa li ma bëgg man te li ma bëgg li ma koy may moom laay def hmm. du ma sàcc du ma fen du ma trafic drogue du ma naafeq du ma du ma macro du ma ci ay lobby du ma dugg ci ay affaire caaxaan ndax hmm. am na loo xam boo ko caaxaanee di nga coroxaan boo ko coroxaanee magro poroxaan doo dem ci soo waa sibu xutaan ñi xëppoon ay melentaan ni nga fàndi xëccoo laa ko caaxaan ku ci coroxaan nooy demee poroxaan ni yow daal euh, li ma mën a xamal mooy daa waajal de li waajal mooy avenir ëllëgam kese amul leneen. daal su ma déggee bu baax li nga wax yaakaar naa ni euh, leer na maanaam yaa ngi ci showbiz ba tey yaa ngi ci sa aar ba tey mais dafa fekk ni dangay dem uti ji loo ci dolli maanaam dangay dem dóori ji waar mm-hmm. mais est-ce que yaa ngi waajal single Dame Sène. xam nga maanaam xar dafay weesu mbote. daam ba woon buñ ko buñ ko toppee ba tey jii nii nii mu nekk mu toll foo mu tol toll rek kon dañ di daam mi maa mbaa jàmm la da nga ñaan yàlla kay yokkute te kay te ay pas dem ci kanam wax dëgg yàlla loolu la ñuy ñaan di parce que booy doog commencé na moom wax dëgg yàlla lu ne di nga ko def fu ne di nga dugg loolu di nga ko wax mais nag boo demee da ngay da ngay màgg nag nga gën mais boo bëggee rek ne ci ABC laa yem ABC D E F G H I J K dem leer na. Hmm? leer na dugg ci li nga xam ne nag mooy actualité en tant que artiste ñu ñëw fii bëgg a <coughs> xam sa gis-gis ci li nga xamante ni mu gisee showbiz bi jamono ji mu nekk nag loo xamante ni ñu bëri ñu ngi koy ñaawlu ci dem affaire yi ba dafa mujjee sax indi sax haine euh, passé na jalousie parce que ku ne xam na ni euh, maanaam coow ak showbiz ñoo ànd mais bii dafa commencé doy waar ndax nee naa du Sidi Diop du Wally Seck dong ñoo fi nekk artiste. du ñoom rek kese ñoo fi mun a way moom moo jiyee mu ngi fi keneen ak keneen mu fi mais dañoo gis maanaam euh, euh, euh, maanaam polémique bi bëri ci ñaari artistes diggante Sidi Diop ak ki nga xamante ni moom mooy Wally Ballago Seck tey en tant que artiste naka ngay nga gisee loolu. man li ma la mën a xamal mooy ku yóbbu daal raxas xol li ngay wax mu nekk ci yow soo biis soo biis soo biis dafay jeex yëpp ay détails la rek maanaam nag. leen naa la mooy ku ci bëgg a mucc yoral xol bu set rek li ngay wax fekk mu nekk ci yow muy dëgg ci yow quoi sama xarit la sama mbokk laa dama ko bëgg yooyu muy nekk ci yow bari nit ñoo xam nag li ñuy wax ak li ñuy def ak liñ doon bokkul soo bis nag maanaam ku mu tax ak ñaaw nit après yow la rek parce que àdduna bi yàggul dara yàggul te soo bis moom. maanaam man changé woon naa tur bi sax tuddee ko saw bis ndax saw sobe la ndax booy xool tey jii affaire yi bëri na ay ay ay lu ci laxasu loo xam ni bokk ci woon maa xalaat dañoo jëm jëli nit ñoo xam ne maîtriser wuñ saw bis dugal leen ci biir loolu moo indi problème bi mm. dafa am ñoo xam tey jii comme mi ngi mel ne tey menuisier bi bu daaji jee mm. maçon bi dem raaxi mm. géwél bi dem tëggi law bi bi yàtt journaliste bi dem poser ay question kon léegi Sénégal dina avancer mais da ngay gis ki war a daaji ne day raaxi yow noo nekkee menuisier naan da ngay tabax noo nekkee maçon naan da daaj. mais lépp a ngi ci showbiz bi léegi non déggoo na ma la showbiz mu bëri ay client léegi seetloo dara aar bi ëpp ni sax armée bi. <laughs> la ilaha illallah aar bi léegi dafa bë ñi daan tàccu ñooy woy léegi ñi daan ñëw di la seetaan léegi ñooy ñooy ñooy doog yow léegi mais léegi kenn comprendre affaire nu mu demee moo tax nag. sama genre gii nga gis nga naan ay daam da demoon nag boo demee dangay ngay yàgg ak nangam sàngam man yàlla def ma teel a dimbali ma teel a comprendre macha allah yàlla bu ma cat kar nag mm-hmm. mais gis nga ko fi topp yaa fi toj yaa fi toj ak ay yow la topp ak yooyu barki Mouhamed boo ko toppee bés ngi ñëw nga naan est ce que kii man la ñaata artiste lañ fi fàtte tey ñoo xam dañoo am talent ba fees dell mën a way ba ni ba ni ba ni waaye ba ni saa mais léegi anañu tuddatoo leen tey doo yéen doo leen leen seeti te ñooñu ay ndaanaan ni ndaanaan lañu mais aar tey boo boo gisee tey ni muy doxee kon yi la ñuy dem di dékk micro dof yi ñu réew ñi ñu rakkaaju ñi ñu soxor ñi rek la ñuy dékk micro léegi dékkatuñu micro mukk koo xam ne dalay wax njariñ hmm. léegi artiste sax dañ leen jéggi léegi dem dem ñem ci ñuy def artiste di leen di leen laaj ay ma loolu mosuma ko gis ci aar la loo xam ci aar ñoo xam ne xamuñ ci aar dara nga dem dékk la micro naan la loo xam ci aar kooku lu mu lay wax. fekk ku jaay naajo nga naan ko loo xam ci pom doo ko laaj ci naajo yooyu muy jaay mais léegi déedéet da gis ko dul artiste sax léegi ñëw am audace nag ba dee nag solo solo artiste takk say jaar ñëw taxaw. waaw aar bi nii la war a demee aar bi nangam sangam te xamoo ci dara li nga wax maîtriser wu dara ñu ci bari li ñuy wax maîtriser wuñ ci dara dara dara dara mais showbiz nag moo demee noonu tey mm-hmm. Mm-hmm. nit. mais des fois est-ce des fois tey euh, du du du ñi nga xamante ni tam ñoo nekk ci ginnaaw parce que tey ku mel ni Wally Seck bañ ko dékkee micro lu yàggul dara bañ ko laajee Sidi Diop dafa ni carrément Sidi Diop rakkam la amul ak Sidi benn problème. Ah. si tamit boo ko dékkee micro la même chose lay wax mais est-ce nekk ñi nga xamante ne ñoo nekk ci ginnaaw artistes yi tamit ñoom ñooy indi euh, euh, maanaam yooyu noonu di am ci biir. maanaam ak lu ci mën a am daal ku nekk la nga jàpp sa xol yaa ku nekk yàlla daal xol lay fay li ma la mën a wax daal mooy lool gàttal ci question boobu yàlla xol lay fay ku ciy wax lu nekk ci yow it bu la yàlla fay sa nga xam xanaa xam ne am na benn boo xam ne ñëpp ñëpp du ñëpp koy wax yàlla yàlla fay sama xol am na ñoo xam bu ñu waxee loolu ba yàlla fay leen ay xolu ñu xeeru raay ay xolu kew ay xolu new ak yooyu da parce que tamit wax gëmuñu ko. am ñoo xam ne tey nit ñi lañuy jéem a nax rek mais ñoom en personne bu ñu wéete xam ne ñoom dañoo soxor wala ñoom dañoo bon wala ñoom yéenewu kër kii jàmm lu leer nag laa lay wax nit nag du soxor naan damaa bon comprendre mais maanaam bu wéete dina xam ni moom mii dafa soxor te loolu moo gën a bon ci àdduna bi ñëw di télé bi tàq rek nga naan waaw man nii man naa da leen julli da leen woor daf leen nii nangam sanga fekk yow li ngay digle doo ci def dara. Mm. te loolu baaxul. showbiz moom dafa jaxasoo fi mu ne nii. jaxasoo mais bi tamit. kan ci transhumance bi nga xamante ni ñii dañuy jóge fii dem ci beneen kër. du ñuy def fii fi nit tuxu fi. toxu ma kaaw Sidi Diop waaye nag ah, dafa dafa boo gisee Sidi Diop ñu doon àndal ñëpp tey la plupart tey ñu ngi ci beneen artiste tamit loolu est-ce que tamit du loolu moo indi yii di am. waaye ñu tuddee artiste bi te tuddoo beneen artiste bi xam nga keneen ki ko la. waaw doo wax waali nga naan dem ci beneen artiste léegi problème bi mooy nit dëkk na kër gi moom yaat mu toog dem dëkk kër gi hmm. comprendre nit jóge na dëkk bi hmm. dem dëkk bee nit football na nawetaan dem première division nit jóge na première division dem équipe nationale nit doon na def nationalité kon nag loolu dara néew ji. kon yow ñaawlu woo dem bi nga xamante waaye mais defal ndànk man fii Sénégal kaay wax la benn affaire dañoo gaaw ci lii lu tax lii lu tax lee fii maanaam showbiz la ñu wax. mais yaa ko sànq say biir wax. Hmm. coow la laaj kon bu amul coow neexul. Hmm. yaa ngi dégg. Hmm. léegi coow loolu kay na fekk mu doon coow jàmm ba pare mu doon loo xam ni maanaam duñ ko jële dara. tey ki jóge fii dem fee. yaa ngi mi mhm. nga jóge fii nga dem fee yow la neex rek nga jóge fii nga dem fale ndax tey jii kenn du fi xoj kenn mbaa ñu fi pressé kenn di la jam ay paaka naan da ngay dem par force déedéet amul tey ku nekk fa nga bëgg a dem fa nga sentir da ngay dem noonu la demee parce que tey ku ci nekk jóge nga fenn do waaw yow ku yow avant nga ne ci fii foo ne woon man avant maa ñëw Dakar gi maa ngoon Thiès mhm. mais ku ci nekk am nga foo jóge ku ci nekk nag ci àdduna foo mën a ne am nga foo jóge tey boo nekkee ci bureau di liggéey école nga jóge mm-hmm. affaire yi kon garaawul ñu ñoo fi nekk di garaawul ay affaire mais tey tey bu xoolee tey kaawu ah. Sidi Diop tey boo xoolee ku mel ne Omaro ca mm-hmm. moom la nekkoon dem ci Waali El Pocho Baye Zall mm-hmm. euh, euh, Ndeye Ndiaye Banaya njàpp tey maanaam ñi nga xamante ni ñoo nekkoon Sidi di ñëpp presque <coughs> ñoom ñu àndoon ak moom di di liggéey ak moom presque xaj bi yëpp dem nañ fële. tey loolu en tant que artiste yow tey jii loolu tamit loolu nga ko gisee tey. mais ñoo bëgg a dem dem rek ñoom sentir dem dem di ay éléments la yoo xam ni maanaam ku nekk da leen soxla dafa ñoo xam ni ku nekk da soxla parce que ay liggéey la rek liggéey tey luy doxal sa liggéey ngay def te yow. maanaam bu dul Wally Seck mooy. maanaam am na yeneen artistes yoo xamante ne ñu ngi ci mhm. réew mi. Mhm. di way ku dañuy gis ku jógee fee rek ci Wally ngay ngay jubale. waaw ñoo xam liñ fa gis ba dem nag. gis daal noonu ñoom nga koy laaj. man <laughs> maa ngi fi man écrit individuel la bokk ne leen koy laaj. ne leen ah, lan ngeen ah non non yow kay Wally nga yow ñëpp xam nañ ne Wally nga. Wally sama xarit la kooku na du ma ko ci àdduna sama xarit la. Mhm. fonk na ma yëg na ma ma fonk ko yëg nit ku baax nag. ku kenn mënta yàq. nit ku baax la Sénégal nag moom maanaam boo baaxee dañu bëgg nga bon peut-être te lu koy forcer nag saxal la ko par force do xiif ñu ne di nga lekk force doo mar ñu ne di nga naan par force loolu am Sénégal moo tax na xoola foog nga am fulla am fayda mën cee génn te ku mel ni Waly ku yóbbu ñaanal ko ndax ni mu mel yàllaa ko def ba pare dafa ay ñaanu way jur suñu borom dimbali ko mu nekk xale xale boo xam ni bu responsable gàddu lu bëri ci ndoddam lii am na ñoo xam ne ñoom lu ba léegi yuuxu nañu ba ba léegi déggoo waari onk kon kii mayu yàlla la am ku yow nag nangul ko sinon ñu bëri dina dee Sénégal maanaam dañuy wadd par kenn kenn kenn kenn di jeex tàkk doo xam lan la fekk soxor la te tey tey waale lii ko yàlla defal nii am na ñoo xam tey bu ñu sañoon tey tey tey mu yem fi mais kooku yàlla la ci yàlla la des dégg maanaam léegi dañuy showbiz ba mu yàgg ñu boole ci leneen soxor biz iñaan biz lépp showbiz am na ñoo xam tey day wax nga xam ne kii dafa soxor man nag bokkuma ci ñooñu yàllaa ma dimbale ba ma teelee nangul waali parce que tamit teel a nangu day yombali dóor tey jii waali yàlla def ko li mu ko def may ko li mu koy may nga ni du fi amee da ngay gën a sonn rek man man ba ñaa ko ba xol bu set laa boo xam ne nit mënumaa dugal ci lu ma bëggut a dugg tey mere naa kii da koy mere bàyyi naa kii da koy bàyyi man doxuma ci yooyu man soxoruma dafa am yoo xam ne nit ki day wax am personne nga xam ne kii dafa soxor dafa iñaan te soxor fi jóg mhm. ndax soxor dafa ñëw di bàqu fekk jëf mu taxaw jëf naan ko du tontu ay wax liggéey ma fi indi laggal fële te nga xaal yoon bi xajal ma ma jàll sàcc ba dafa ñëw ci kër ga fekk ñëpp di nelaw mu xool xool gisul dara lu mu jël rek mu ibbi robinet ba daw xanaa loolu soxor fale mhm. dugg nga ci kër jàmm gisoo loo sàcc ibbi seen robinet bàyyi ko noonu dem ndaw facture bu cher. waaw maanaam tey ñu gis tamit ci biir Ramadan lu nga xamante ni daawuñu ko woon gis. Ramadan mosuñu woon dégg ay coow yu sew yoo xamante ni seen biir la. Mhm. mais tey dem nañ ba gis ay ay nit yoo xamante ni euh, euh, maanaam dañuy wax ak ñeneen ay audio di fuité dem ba ñi nga xamante ni nit de. ma tontu de. dama ni la mhm. Ramadan daa man lu ragaluma ko Ramadan daawuñu ci gis li nga xamante ni moom mooy ay polémique ay wax yu sew ci seen mm-hmm. biir mm-hmm. mais léegi dañoo gis ci seen biir lay audio di fuité gis nañ Adamo récemment génne na ay euh, audio wu Amady Badiane mm-hmm. yeneen ak yeneen Pawlish Mbaye génn na euh, ne bu ci woon tànkam maanaam dina gën a ñaaw loolu tamit ban gis-gis nga ci jàngee dem ba ñoom seen biir mel ni supporté tuñu en fait seen biir ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñoo mujjee ñëw ndax coolu cooli loolu la la ma waxoon laay waxaat xam nga coow moom fu ne la am mais nit dafay am bàmmeelu biir mm-hmm. te man su ma sekkee ak yow groupe ñu nekk ci lu ma la mënta wax dama koy garder mm-hmm. tey duma ma jëlluwaan di ko wax kenn di kalaame kenn kenn yaa ngi dégg mm-hmm. tey Amady nee juum na foofu dafa juum parce que nit ku dul juum tamit amul mais dafa juum man samay wax du neex ndax amadi tey problème bu mën a am ak war na ko mën a régler ak waale parce que ñoom dañ taxaw publiquement waale wax ëma di wax ba ñëpp di leen bàyyi xel am na ñoo xam tey bu ñu soxla waar bi mën nañ ah buñ jaaree ci ëmadi day gis waali ndax ëmadi jege na waali te ëmadi boobu ñuy jiiñ bu ëmadi boobu ñu xëy tey dégg ko muy woo aadamoo tey di ko wax problème am moog waali ñu bëri nañ jaaxle mu ngi noonu mhm. te maanaam Ramadane dama bëgg ñu mel nañu meloon doon ñi ñu doonoon te tey li ma gën a naqari sama àdduna loolu ci la bokk parce que man nekkuma Ramadane mais coow yi am nii ci biir daan man neexuma neexul keneen ak keneen parce que nit ñi foogu ko tey bu ñu demee tey ba benn nit maîtriser ay Ramadane naan leen ay su ma waxee kenn du génn suma ma waxee kenn du wax loolu maanaam yaa problème te gis nga àdduna moo tax nit da am loo war a rus am loo war a jomm. Mm-hmm. àdduna amul solo te dara yàggul fii loo fi wax mën na la ko mm-hmm. loo fi wax nit rek mën na la wax. mais dafa am yoo xam dafa rafetul. man man mënu ma conserver tey man tey nga wax ma benn secret ma génn di ko dévoiler ñëpp di ko dégg man mënu ma loolu man. mais est tamit euh, daam du ñi nga xamante ni tam ñoo mujjee ñoom ñooy déranger ñi nga leen di déranger tamit parce que tamit daam daam du benn kër goo xam dañ koy tëj ne kenn du fa dugg. mënul nekk tey jii am na ñoo xam ñu ngi seen xam-xam yoo xam ñu ngi ko war a apporter waale te ñooñu accès guñu ñooñu buñu bu ñu fëgg dañ lay war a ubbi ñu ñëw bokk ci liggéey buñ ci waree bokk parce que tamit waale ay mbiram dafa yaatu ba ba raam daan di dooga doon raam daan toll ñu ni nii waaw mais ñu ko bëggee ji ñu fay doog a ñëw ñu fay doog ñëw dañ faa war a ñëw rek ñëw fa te ku ci nekk ba nga fa ñëwee boo yokkul wàññi woo boo yokkul wàññi woo muy Baye Sall muy Omaro muy Ndeye Ndiaye Bandaya muy Aw Bandaya muy Njàpp ak ñoom ñëpp dañuy ñëw am beneen affaire bu ñu fa indi yokk te dañoo fekk ndox may nekkoon ci digg bi ñu sol ko ba mu fees dell ñoom yàqu fa dara de. Mm. ñu ngi liggéey seen liggéey teg ko ci yoon. te kañ koy liggéey bëgg na loolu. mënoo ci dara da wax bay bëgg a dee mais mënoo ci dara parce que yàqu fa dara ngay waxante dëgg te yàlla tax njàpp. ba mu ñëwee daan ak léegi même bu dee demi morceau lay fekk sax mi ngi koy toj. Mhm. bu duggee ñëpp kon kontaan nday njaay bandaya bu dikkee ba ba jox jox joxoñam boobu. waaw xaw ma ndaat saay xaw ma tey aw aw bandaya génnee fee. def feem boppam. Omaro mhm. moom naa la xamal ne Omaro rek doy na ci kër. la ilaha illallah kuy wut nitu soo biir ba am Omaro dama nga tëdd nelaw. Mm-hmm. mën na maafe mën na domo daal mën ceebu jën mbaxal suppu kànji lépp plat yëpp la Umaro toog Umaro mm-hmm. tiitul Umaro raful Umaro mm-hmm. moom yoonam neew ci kon nag ku am Umaro rek mën ngaa dem tëdd nelaw léegi nag boo amee Umaro am ñeneen ak ñeneen ñeneen ñeneen fi mu ne ku ne soxla ko ko sawet de dama lay wax benn affaire mën na joobam de man Umaro ma toogam yàgg man mu yéem mën na joobam trop mm. yee ci wóorul sax ci li nga xam ne moom mooy coowal terrain yi nga xamante ni gis nga ko fan yi ci réseaux sociaux yi. Mhm. ginnaaw ba mu demee fi nga xam ni moom mooy Bambilor moom Omaro def vidéo yor ay kayit yuy wane ne Wally Seck dafa jëndal euh, ñi nga xamante ni ñoom ñooy orchestre am musicien yi ku nekk <coughs> terrain. mu mhm. Omaro daal di li nga xam ni moom mooy Bambilor tuddee cité bi cité Papa Thione mhm. mais ñu delluwaat gisaat. ki nga xamante ni moom moo euh, faree ci kii euh, Sidi Diop mi barito ñëpp ràññee ko tamit à travers TikTok ni muy défendre ki nga xamante ni moom mooy artiste am delluwaat dem ca terrain ba def vidéo ne li nga xamante ni lañu wax dara du ci dëgg terrain boobu noonu Wally sekk jënd ko te li muy wax pour leer la ko teg avant ñu ñëw ci li nga xamante ni moom la paa bi wax démentir tey loolu tan ndax nga ko jàngatee daam ci soobis bis kase topp nit ki ba bëgga a xaawi suturaal. déggoo ma de waale ko yow yéen ko jàmm muy tee rek ruq laa ci yemale ku yóbbu yéene waali jàmm barki Serigne Bamba bu fekkee lu mu wax nga dem vérifier bilaay di nga loolu gis yàlla def na ko li mu koy def ba pare. tey jii ay waxi teere Omaro nee na li kee nee na lee loolu lépp ñoom la rek me li mu la mën a xamal mooy waale am na yéene waxuma la teere am na yéene maanaam jëndub dëkk may ko ñu mu àndal xol ba xol wa nit ñi nag dañ dul xam nit tey jii am na ñoo xam ni da nga leen yéene torox far yaay forox. nga leen di te doo am vignette mm-hmm. boo amul vergogne nag nan la yóbbu ci jàddu koñ boo la ak ay jargoñ ndax dignité mooy tax nga nite fii ku contre may ko montre bu soxlaa heure xool ko waali baa laa ko sekk Sénégal dañ ko waroon respecté ku ñu waroon respecté Sénégal bu dul dara sax moment yi ñu toll nii koo xam ni maanaam mi ngi nekk ci benn engagement ci wàllu disque door mm-hmm. te jii am na wax yoo xam sax tey bu fekkoon waali wax na ko te du dëgg sax dañ cee war a dëgg suñu tànk te xam ni maanaam dañoo am benn star boo xam ne si yàlla suñu borom ñun la ko jox mu ñun la ko jox yeneen dëkk. te mu nekk xale bu ndaw. vente ba fan la ci toll. comme lan tet la ñu tet xaw mais tet mooy bopp. sa bët tey yooyu maara day taal ñaanul ma ko tey. bu muuroo doo gis la ngay fa nga jëm di. bakkanay nooyu di. bu bakkan demee ruu dem foo jëm gémmiñ ñay wax di. tey loxo day mottali rek tànk day mottali rek ndax lu bët gisul tànk du fa dem lu bët gisul loxo du ko laal kon nag à la tête moom à la tête la rek te amaro omna am solo nañ ko buddi xale bu juddoo lu ñuy wax nañ ko tuddi mm-hmm. tey boo bëggee sutura danga naan xaaral ba guddi kon nañ ko buddi lu am solo ngi noonu mm-hmm. te kat man si ñoor duma takk tubéy ju amul ñoor duma lekk diw du ma takk or ba tax na depuis lors la joor ànd ak maajoor ñu poor foor sol ay adoor maajoor sob di gàdd bitiri diw ñoor mu dis mu def effort dem école la joor naan je suis fort élève naan ko soor mu naan j'ai tort waaye bu yëpp ay woor waale am na disque d'or waaw ah, day ñëw xool ci kàttanu yàlla am na ñoo xam ne bëggum ñëw bëgguñu mu ñëw am na ay sénégalais yoo xam ñu ngi ci biir Sénégal gi bëgguñu waale am disque d'or te loolu sa doomu réew waale ñii dañuy fàtte ne Wally sénégalais la dañuy fàtte ne Wally sénégalais du ivoirien Wally du congolais Wally du zaïrois Wally sénégalais la dafa am loo xam ne maanaam da koy bëgg après yow da am jàmm réew mi dox boo gisee senegal doxul ba léegi soxor gi la boo gisee Sénégal seddul ba léegi ña jëndoon pull ba léegi ña nga denc seen pull mais lii mbaa jàmm tamit xol yi ñoo xol xol yi ñooy baax te fur na new fa gaz new fa alum gaz new fa allumet new fa briquet new fa xol yi di baax lan la lan mooy baaxal xol kon lan moo xew yow nit ki yàlla def na ko lii mhm. ah mais ñaanal ko mais soxoro soxoro soxoro soxor ba c'est pas possible dafa am yoo dafa sax ñaaw tey jii mi ngi mel ni li may wax toujours ne man bu gars yi di sóor succès man dee laay sóor tey jii boo taxe wax ci nit ko lu ñaaw wax ci moom lu bon mhm. ñu xam ne yow da ngaa bon lu ñaaw ngay wax ko këy këy génn àdduna nan ngay demee ti dëj ba di jaale ji te ñàkk nañ jom ñàkk jom boo xam ni ñooy njëkk ca daje sol dara am baa sol jàllaabe bu rëy boo xam di jooy jooy lu xamul man lii di mun ma concevoir ni seen Sénégal maanaam buñ doon vin dix huit yëpp ay dof lañ doon ay nit deux ñoo ci ay parce que am na yenn yoo xam boo koy def yoo te xalaatoo ëllëg yow mën ngaa xëy suba teel nekk nga yenn ñu tàggala di mm, nit day am doole ñu naa ko jaamul yàlla mu bañ nga feebar léegi ñu naan la waxal yàlla actif te ba ngay actif yaa sa effectif daaw wax na nit ñi nekk ay nit quoi tamit. am na solo mais tey boo déggee paa bi ki nga xamante ni moom moo moom euh, Touba distribution génn indi ay leeral dem ba ne dafa am ñu ko woo ne ko taar moo bëgg foofu terrain mm-hmm. juste dañu woon pour xam ndax Wally am na fa terrain mm-hmm. wala amu fa terrain mm-hmm. loolu tamit ba ko déggee paa bi wax nan la la paa bi dafa nii dafa am nit bu ko woo. léegi na daal ñi nga xamante ne ñoom ñoo euh, filmé muy ñoom Barito ñoom lu ñu wax moom moo amul mais Barito defaan na sorti daam ne indi ay audio yu leeral nee na euh, paa bi li ko wax ak moom li nga xamante ni loolu la ko paa bi waxoon ak sorti bi mu def c'est pas te li muy wax leer na bu fekkee ñoom ñoo ko moom nañ tabax. léegi kon na ko dem lijjanteeg paa bi moog paa bi la. non mais maanaam man fi may laajee moom mooy est-ce que soo bi jar na lii. ma ne xaw jar na ko xaw ma jaru ko moom génn na wax paa bi génn na wax ne dem lijjanti loolu moom paa bi. ne Omaro da euh, maanaam euh, da doon da doon fay li nga xamante ni moom moo fa amoon moo tax mu génn ay papier naan waaye sekk jënd fii terrain alors que amu fa terrain. léegi loolu tamit da koy dem wax Omaro. yow laa koy laaj yow ban gis-gis nga ci am daal. non man gis-gis bi ma mooy fi mu ne nii ku nekk ak la war a wax ku nekk ak la nga war a def. man li ma wax mooy daam seen en personne. Mm-hmm. yaa ngi dégg am na yu bëri yoo xam ne war naa ko mën a waxtaan ak yow. Mm-hmm. terrain yooyu fekk ma ba ñu signé fekk dara li ma la sànq doy na waali am na yéen jënd dëkk may ko ñu muy àndal ay dëkk laa kii mu yaa moom dëkk bi kii yaa moom dëkk bi yaa moom dëkk bi. ki nga xamante ne moom mooy Omaro exemple. Mhm. mi nga xamante ne presque moo yor communication waali bu demee bay wax tamit war na wax loo xamante ni tamit lu lu lu lu am la loo xamante ni sénégalais. non non waxuma amul mais pa bi ah. am na. mais kenn génnaat ay audio ne loolu amut. pa bi ah. dañ ko dañ ko woo fay ko euh, mu génnaat waxaat la contraire. waaw léegi kon ak pa ba loolu. parce que yi am na waal jënd na ko kon paa bi ne waal jënd na ko wax dëgg yàlla nag man day teere waxi teere yooyu moom. ah wax sànq ah. mooy. man am naa am naa kër sax. man joratuma teere kër laa xam nga lan mooy problème bi mooy. Mhm. li ma la sànq dafa doy sëkk. xam nga teere la ñuy wax nee naa la waali attan na jënd ay dëkk may ko ay musicien ay dëkk moo raw teere kon nag man wax jooju man lool loolu laa ci tontu rek. Hmm. paa bi nee na kay waali am na fa teere kon kay waali am na fa teere o dëgg yàlla. am na yoo xam nag sawaay boo koy topp nii am da ngay mujj xam nga sondeel moom buy xulug làmp tant que courant coupé du am ndam mm-hmm. te ki ñaax ngir nga bañ a lekk ñax moo la gën a xam ne ñax amul yax mm-hmm. àdduna bii dafa doy waar nit ñaa ngi fi nekkee nu nekk ndax alal ñu ngi ko amee baax na waaye ku ci yebu da nga sóoraale ëllëg de da ngay dee ñu suul la ci suuf kenn deewagul bañ suul la ci air bi te deewagul bañ jox la argent de poche ni sëri naa la ko aajo ci yoon bi jëndal lii est ce que bus ngaa gis ku dee di ku lekkul li nga war a lekk ba dee dootoo ko lekk ku sol li nga war a sol ba dee dootoo ko sol ku waxul ñi nga war a waxal ba dee dootoo wax ak ñoom ku reglewul nag ba dee di nga xam ne xoola malaaka yéela gën a rakkaaju fop balaa ngaa dem ca ñoom sax doom yi nekk ci biir armeel rek bu jàppee sa tympan yi mun <tsk> waaye lu nañ topp àdduna bi bi rek fëx fëxu àdduna bi rek rythme àdduna mu leen lu nekk rek yàlla nañu yàlla musal seytaane rek yàlla lafar ñu car rek yàlla dàqal ñu seytaane yal nañu yàlla aaral boppam rek yàlla may ñu xel bu ñu mën di xalaatee quoi parce que waxoon naa fi nit du nit mu tax nga ne nit du nit man ko sa xel du nit doo nit te bu dëkk bi ne salaw war ngaa nelaw fu am ngelaw yow. baax na am na ñoo xam ne loolu àdduna jaral nañ dem rek àdduna ngi noonu maanaam tey mënoo fexe ba nit ñi dee yow nga ne fi. mi ngi noonu. Mm-hmm. ah état jeune daan naa ko wax ma naan man su ma yëgoon sax pot ndaa laay nekk ñu ne potu ndaa bu àdduna tukkee pot pot ndaa <laughs> pot ndaa day mokk yëpp di. jërëjëf daam kontaan nañ bu baax a baax euh, ci disponibilité bi ma wax ko encore une fois muy artiste boo xamante ni nag euh, nit ku simple la danga koy war a jot ko ute naag ñoo xamante ni seen portable ne pas déranger lañ koy def loolu moom dama koy wax di ko euh, ci moom mi nga xamante ni danga koy woo boo ko jotulee sax mu rappelé la daam kontaan nañ <laughs> ñu ñu rek nga lancé message mbokk artiste showbiz waxal la neex nga daal di tàggu. man li ma leen daal leen rek la mooy nañ ma des nañ yéeneente jàmm nañu réglé nañ nekk ay nit. Mhm. te artiste moo gën a soof ci àdduna bi. Mhm. da nga ci gis ñoo xam ne saa waay duñu dara bëgg ñëw fi moom dafa ni àdduna bi mën nañ koo ngëb nañu réglé. Mhm. fii gis nañ fi ku ne ku ne jaar na fi. seen yi ñuy def nii moom amul sens. yow bu la leeral ne guddee da ngay nelaw yaa ngi boo bëggee dem cabinet da ngay dem cabinet non dañu waxante dëgg rek. dafa am yoo xam ne jarul sax ñu koy jéew ak ngandal ak di jéem a def ay affaire di nit ñi dañoo war a régler quoi nekk ay nit yaa ngi dégg. ak numéro ma xam du ma ko jël. waaw ñoo xam ba pare en général maanaam yow boo jubee di def lu leer am na yoo xam ne saa waay nit ki lay woo. xamoo kan moo lay woo ak ban intérêt la lay amal mais doo ko jël. Mhm. bu la fekkee bëggoo wax moom nga ne ko bëgg maa wax yow. wala mu lay wax lu la intéressé woon nga coupé amul problème. mais yow jëlal ki lay woo rek mais ay numéro ma xamul du ma ko jël soof rek lañ jàpp. parce que tey jii am nga ñoo xam ne doo leen jël waaye am nga ñoo xam di nga leen jël. Mm-hmm. am nga ñoo xam doo leen am nga ñoo xam di nga leen jël force. Mm-hmm. ndax tey ñoom fu seen intérêt nekkul rek artistes yu bëri nag noonu lay def fu seen intérêt nekkul seen yoon nekku ci. affaire du noonu. am na ñoo xam ñu ngi sonn ci yow te xamoo leen. toog di leen ñaanal te leen di jël seen xaalis di di leen dem di leen fay pour sa yokkute te xamoo leen. Mm-hmm. tey nit mën na mën na laa dikk ay ray ne kii bu fi jàngoon moo koy rey nit dégg ko di la woo pour wax la lool pour nga moytu kawte bopp mais ngay bañ a jël yaa koy yëg rek te jii nag boo xasee ba faatu buñ denc la suuf si bilaay di nga bëgg ay appel doo am bu boobaa kenn dootu la tal mais lan moo xew lan mooy mooy loolu jëlal buñ la saaga bu ñoon te nga bañ ko jël kii mën na la saaga tey kii du la saaga yaa ngi am na yoo xam ne da maanaam man mën mënta concevoir kon wala boog nga jël sa téléphone nga mboxoña ko nga toog bañ a téléphone kon lan la yaay kan yaay kan nit nga rek mais régleel sa waay li nga yor mooyoo ko sa bopp di li nga doon defoo ko sa bopp di mais réglé moo la war yow nit réglé rek ko war billahi nit réglé rek ko war te nit ñi léegi réglé tuñu benn lu waay ëppale woon na ko kii day am yére sax yéene la yaramu neen léegi dex na léegi sax ku solo sax taxaw ne damaa solo te boo ko deful kenn du la ko waxal nit ñee bon soof ba pare moo tax nit ku ne war ngaa dem marché jënd soof jënd soxor jënd pànk ëppal rakkaaju iñaan bon siis ba pare nag jëndaale katakay toog ak moom toog ak moom hmm. rek nga génn sa xose bi teg loolu kese ah. daal lex say fan li ma wax di leen ñaanal ñoom ñu gudd fan rek hmm. te leen wax ni am nañ soppe boo xam ne géree la hmm. mën na ci bii boor mën ci bee boor te incha allah adnaan ci suñu kanam nañ dem rek waaye nañ ci boole rek di bàyyi xel yàlla rek mm-hmm. loolu kese laay wax amul leneen li kontaan ci yéen mm-hmm. sa caméraman moom gëree la dafa dikk rek commencé serré affaire yi yow nga ñëw tardé di puudar ak lu ne nga dugg ci li kenn xamul lan la wasalaam. kontaan nañu am chers fidèles internautes daam seen la woon moom la ñu dala euh, dalaloon waxtaan ak moom ci li nga xamante ni rek moom mooy euh, carrière mag li nga xam ne tam moom mooy actualité di leen jox dig daje incha allah rabbi euh, très bientôt ak beneen invité d'ici là portez-vous bien merci. Thank you.